booba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi ak lu jëm ci euh, combat royal bi nga xam si kon léegi nii la doon am ca arène nationale combat boo xam si nag mi ngi doxoon ci diggante Modou Lo mi roi des arènes ak Siteu moom Modou Lo nag mooy euh, mujjee di euh, wëy di des di nekk roi des arènes li ko waral nag moo di ndam li mu am ci kaw Siteu gannaaw bi temps bi jeexee fekk ni Siteu dafa amoon ñaari avertissement ci biir combat bi itam am na ay jeexi jaaxa yoo xam si amoon na ci waral kon ba Siteu di ci yëg te ay kàddu loolee lépp dinañ ci dellusi ci biir sport weekend ak RFM kumpa jeex na lu yitteel euh, mbëkk mi dàkk kon loo xam si évêque yi fare ci conférence épiscopale Sénégal Mauritanie Cap Vert ak Guinée Bissau daal nañ ci wax ci seen assemblée générale bi nga xam ñi ko doon amalee ci Ziguinchor loolu nag tax ñu ni nguur gi jot na sëkk nag ñu daal di ci ut euh, pexe wax nañ itam lu jëm ci fitna yi ci lànguk politique yi ñu daal di koy euh, jeexal bataaxal bi ñu fésal ni ki tey ji toppandige Gabriel Collier. émigration irrégulière di tukki bu doom mu doon nag mbir moo xam ne soxal na ñii di njiitu conférence épiscopale def seeni session ordinaire fële ca Ziguinchor ñoom nag dakk lu ñu benn yoon di wone seeni naqar ci li nga xam ni moo di mbëkk mi évêque yi nag ñoo ngi woo autorité yi ngir ñu andi ay saafara yu gaaw jëm ci mbëkk mi ñoo ngi woo mboolem acteur rawatina kilifa yi ngir ñu dàkkale jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw yi tey ñoo ngi koy jànkonteel évêque yi tamit ñoo ngi ñaawlu fitna yi nga xam ne gis nañ ko ci langu politique bi bu ñu yëkkatee te di jaay jëfal askanu Sénégal ci seen taxawaay bésub vote bi ñu ngi am mbégte bu baax ginnaaw bi ñu amalee cohabitation ak dialogue ngir réew mi gën a jëm kanam gannaaw bi ñu génnee ci seeni session ordinaire fal nañu ki di monseigneur Paul Abel Mamba nekk évêque fële ca diocèse bu Tambacounda ngir mu jiite bile conférence épiscopale moom Paul Abel Mamba ma wóotu kii di cardinal Arlindo Gomes Furtado nekk évêque bu Santiago nekk ca Cap-Vert jaajëf Gabriel Koli euh, lu aju ci euh, mbëkk moomee la ñuy des ba tey ak émigration bi lu gàtt gàtt kon euh, juróom fukk ak ñeenti junni yu toftal ñaari téeméer ak fukk ak juróom-benn migrant dal na ñuy dugg ci Espagne ci lu jaarul yoon diggante weeru janvier jàpp novembre bi ci at mi ñu nekk lim bi nga xam si nag ñoo dugg Espagne ci jaare ko ci géej gi jëloon gaali looco dafa daal di yokk bu baax a baax bu fekkee ni méngale nañ ko ak atum 2023 naam ne nag Sénégal yeneen réew yi ñoo ko ëpp jàppale ca ñu fay euh, dugg terewul nag euh, ñu bare bari kon ñu ngi woy di jóge fii nii ci réew mi di jël gaali looco yi di utali euh, Espagne rawatina kon fi nga xam si moo di biti réew ki ni gisee moo di Marie-Lise mi nga xam taskatu xibaar la bu yëngutu ci wàllu woowee Mouhamadou Abba Bayo bu ñu sukkandikoo ci Marie-Lise Ndiaye di taskatu xabaar xam-xamam màcc ci wàllum question migratoire lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent junne yu tekk juróom-ñaari téeméer ak fukk ci ay migrants jël ay gaalu looco ngir dem ca Espagne diggante weeru janvier ak novembre ci at gi ju nekk. migrants yi nga xamante ne dañuy ñëw ci anam yu irrégulière fii ci Espagne janvier ba 15 novembre chiffre yi nga xamante ne ministre de l'intérieur espagnol da ko joxe nee na ko 54 216 migrants yoo xamante ne dañoo jaar de façon irrégulière Espagne ñoo fi dugg si soo ko comparé ak 46 811 migrants yi nga xamante ne heure bii daaw ñoo fi dugg si woon su nekkee ñi nga xamante ne gaal lañ jël nag pour dugg ci Espagne 39 713 migrants ñoo dugg si fii ci Espagne. bu ñu sukkandikoo ba tey ci spécialiste bi lim gi dafa yokk bu ñu ko mëngalee ak daaw. donc yokkute bu 7504 migrants la ñu jàngat euh, depuis euh, année bi euh, ci de janvier à mi-novembre. année bi passée soo xoolee totalité yi nga xamante ne moo dugg si ci 12 mois yi dafa xaw a jege sax li nga xamante ne moo dugg si du janvier à au 15 novembre. tey fii ci réewu Sénégal ñi nga xam ne ñoo fi jóge ngir dem ci Espagne dafa wàññeeku bu baax. ñu dugg si fii ci Espagne la doon jógee Sénégal wàññeeku na bu baax a baax même si aussi il faut note benn mbir boo xamante ne gaal yi jógee Mauritanie y a toujours aussi des Sénégalais yoo xam ne dañ fay jëlee gaal yi mais gaal yi jógee Mauritanie Algérie actuellement ñu ëpp ñi nga xamante ne ñoo jógee Sénégal. donte ne ñu dem ci Espagne bari na waaye terewul ay migrants irréguliers jóge ci ay réew yu wuute nekk di jël ay gaal ngir dem ca Espagne. jaajëf Mouhamadou Abba Bayo ngeen di wéy di déglu yu guddi gi ci rajo Futurs Médias juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-ñaari simi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. élection falum député yi ñu euh, weesu xam ngeen ni la ca tukkee mooy tax ba pencum ndawi réew mi nu dagmal mooy doon fukk ak juróomeelu euh, législature bi euh, député Pastef nag ñoo cay ëpp lu gàtt gàttam am nañ ca téeméer ak fanweer tax nag ñu amaloon ab lël fële ca Mbuur ngir nag tàggatu fa ci ban taxawaay lan war a am ca biir assemblée national tey ji nag la ñu tëj lépp ci teewaayu seen njiit di Ousmane Sonko mi leen wax ne lu baree bari moo leen fay xaar ci ab taxawaay waaye itam lépp lu soxal askan wi nga xam si euh, mujjee naal daal di am bokk na ci li nga xam si moo yitteel euh, réew mi Ousmane ko ak Ndeye Mati Dieng. wax Sénégalais yi ni assemblée nationale moom bu soobee yàlla bis ni ki tey dinañu xam lan mooy njëriñu assemblée nationale ci réew mi mooy conception bi ñu ci amoon ni assemblée nationale amul solo amul njëriñ dañ febbu ay nit ñi leen fay xaalis di leen jox bi carburant te kenn xamul lan mooy seen utilité ci réew mi loolu moom bis ni ki tey jeex n muy assemblée nationale muy beneen institution li nga xam ni moo taxoon ñun ñu sonn ak di xeex soobu ci xeex bi ba ñenn ñi seen bakkan na ci ñenn ñi seen liggéey yàqu na ci ñenn ñi dugg nañ ci kaso saa su ne rek ci li ñuy def suba ba ngoon jot li ñu yàlla dénk na méngoog loolu loolu rek la ñu mën a delloo njukkal ñooña loolu nag day doore ci assemblée nationale doore nañ ko ci pouvoir exécutif bu ñu koy rek léegi teg ko ci jub jubal ak jubbanti ci njiital président Bassirou Diomaye fay waaye ñëpp xam nañ ni kuy gouverner soo yoree pouvoir exécutif tam soxla nga assemblée nationale sinon dina xaw a jafe kon loolu dañ koy wéyale ci assemblée nationale bi mooy député bu ne saa su ne na càmbar boppam digganteem ak boromam càmbar boppam digganteem ak projet bi càmbar boppam digganteem ak Sénégalais yi ba xool ndax lañ ko bëgg a def loo méngoo na ak liy yoon wala déet doo ko def parce que neex na Ousmane Sonko loolu du cëru député assemblée dafa war a gi dañu bëgg ci transparence ñu am ko boo gisee yu bëri yu am suñu réew yi mooy citoyen bi dafa jàpp ni nit ñi dañ leen di nax ba falu bu ñu faloo ba pare tëj lépp mu def ki benn boîte ñoom xamuñu lu xew ñu naan leen milliards yi jaar na fii nit ñi lekk nañu lii nit ñi détourné nañu lii jaay nañu pétrole bi jaay nañu gaz bi mais tey assemblée nationale bu meloon ni mu war a mel coow bi ñu am ci pétrole ak gaz du fi am kàddu yi premier ministre Ousmane euh, Sonko moom Ousmane Sonko Abdourahmane Diouf ci ab gouvernement am la bokk mooy jëwriñ ji ñu dénk njàng mu waa kawe mi waa SAES e di syndicat bi nga xam moom mu jàngalekat yi fare ci njàng mu kaw mi nag dal nan bu baax a baax ci kawam ndax ne tournée bi mu doon amal ci biir université lam leen digoon ba fi euh, defu ko bokk na ci nag décret bi mu waxoon ni daa réer ba tey ñëw ni gisaguñ ko ñu ngi koy xaar lu jëm nag ci euh, à la traité ak seen taxawaay ba ci itam euh, yeneen i mbir yi nga xam si yitteel na leen te ñu waxoon ko mu waxoon ni dinañ ci andi ay saafara te ba fii France daal di xëddeen David Célestin Faye moom mooy secrétaire général bu waa SAES e ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Idi Sow Euh, ndax moom dafa defoon nga xam ne da ko respecté ndax jàngal mën tàmbal normalement ñu seet ni waaw soo demee Fatick ba léegi ñaari weer mu ngi nii ba léegi mënuñu jàng parce que locaux yi ñu jox dañu màggat dal yi ñoo ngi daanu seen kaw ñoom mënuñu jàng ci sécurité nga dem Ziguinchor itam jafe gis ngeen ko fan nii ak étudiants yi foofu ndax mesures yi ma waxoon yëpp ko maanaam aussi euh, mesures yi ma sax bu ñu séminaire bu ñu defoon ca Saly wàllu calendrier universitaire ñu gis itam ministre bi wàllu orientation bachelier euh, foofu dafa respecté violer loi bi parce que euh, li yoon wax mooy que université yi euh, dañu war xool yan mooy seen capacité d'accueil ba pare ñu déggoo ci ak ministère balaa muy envoyé ñu seet ni moom dafa envoyé lu ko neex xoolul ndax ñi mën nañu leen accueillir ou pas mu envoyé ko ñun bañ ñu bachelier ñëw mais il faut que ñu seet ndax mën nañu leen accueillir aussi mu jox ay mesures d'accompagnement maanaam mu recruter enseignant mu yokk budget yi mu terminer chantier yi ndax xale yi mën jàng si jàmm ay jafe-jafe lañu nar a kenn itam wàllu salaire gis ngeen ko université yi léegi kenn fayatu leen normalement sax dañu seet ni wàllum retraite dañuy dagg salaire enseignant yi duñ ko versé ci FNR bi donc loolu foog naa ni détournement la te ñëpp xam ko euh, benn poñ daal muñ intéressé ci wàllu protocole bi ñu signé woon ak gouvernement bi janvier 2023 euh, wàllu retraite ndax dañuy ñu signé woon benn décret février 2024 waaye décret bi daal dañu ne réer décret bi naa ne moom daañu génn parce que question boobu question justice question équité et duñu nangu kenn euh, nangu li nga xam ne euh, yoon moo ñu ko may donc maanaam daal fii ak fanweeri SAES dina génn pour xeex lool. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen lu jëm ci euh, campagne njaayum gerte gi njëg gi baykat yi di ko xaar boobaak léegi nguur gi nag fa yéene ko tënk ni ki talaata bi ñu euh, dëgmal daal di koy jaare nag ci ab conseil interministériel boo xam ne limaani jëw ni moo koy euh, jiite lu aju nag ci njëg gi fan ko daan tënk ca jamonoy président Abdou Diouf jaar ci président Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall loolee nag doxinu ko kàkkatar la bu ñu sukkandikoo ci baykat yi ñu gis ni jéego ya demul lu baree bari daanaka juróom jàpp juróom-ñaar dërëm képp lan cay yokk tax nag ñuy xaar yokkute gu am solo ci ci nguur gi falu yees Ibrahima Diame. depuis Abdou Diouf njëgu kilo gerte gi mu ngi doon tourné diggante fanweer ak fanweer ak ñett ci Abdoulaye Wade dañuy gisee ne xaw na yeggu tuuti ginnaaw bi mu ubbee marché bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di gan yi rawatina chinois yi fi ñëw mu jóge nag cent deux cent quarante wante nag ci nguuru Macky Sall gisee ne xaw na yeggaat tuuti dem deux cent quatre fi mu toll. jamono jile waaye ba tey paysan béykat yu bëri jàpp ne loolu dafa néew lool te évolution prix bi dafa yéex trop ak njëriñu gerte fi mu toll Thierno Dieng moom mooy njiital mbootaay bi ñuy duppee alliance nationale pour le développement rural. gerte gi prix bi nga xam ne moom lañ koy jëndee vraiment dañuy jàpp ne na dañuy jiital sunu intérêt réew mais du prix normal parce que prix bu ko bitim euh, réew jënd ñëw jënd ko lu ëpp. li ko waa Sénégal di jaayee transporté ko ni transformé ko loolu dafay wane ne gerte gi mën na am prix bu nga xam ne ni dafay dépassé trois cent dem trois cent cinquante ba quatre cent et prix bu nga xam ne aussi euh, dana mën a maanaam euh, sawaral baykat a mën a bay. bu ñu sukkandikoo ci jëriñ ci yore wàllu mbéy mii di Mabouba Diagne njëgu kilo gerte gi nga xamante ne ñoo ngi koy war a fixé ci conseil interministériel niki mardi bile dana tax béykat yi kontaan kenn du ci mer waaye béykat yooye nag ñoo ngi xaar lu mu néew néew diggante quatre cent dem cinq cent francs CFA. jaajëf Ibrahima Diame jàngeen jëf mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi guddi gi li ci gënoon a bokk na ci ndam li Modou Lo am ci kaw site gannaaw nag ñaari avertissement yu mu amee bi temps bi jeexee. lépp ñaar fukk ak ñeenti junni migrant dugg nañ Espagne ci lu jaarul yoon diggante weeru janvier jàpp novembre Sénégal yeneen réew yee ko ëppale waaye terewul kon ndaw yaa ngi wéy di jël gaal yi locce yi loole conférence épiscopale Sénégal Mauritanie Cap-Vert ak Guinée Bissau daal dinañ koy waxtaane ni ki euh, tey jii Ousmane Sonko daal nay euh, wax euh, ci lu yitteel député yi falu yees lël bi doon na amal tey jii ca Mbour wax na ni kon lu bare bari moo leen di xaar tamit ak coppite gu rëy dina assemblée nationale bi ñu euh, jëm SAES dal bu baax ci kaw Abdourahmane Diouf mi ministre euh, bi ñu dénk njàng mu kawe mi euh, ñoom ñi leen di syndicat bi féetee ci université yi gis ni kon moom ministre bi lépp la mu leen waxoon ci ab tournée bi mu doon amal defu ko lu jëm ci wàllu tàggat yaram ci kanam tuuti kon lay doon. ca arène nationale foofu nga xam ne kon foofu la combat royal bi doon amee ci diggante Siteu ak Modou Lo ngeen teewlu ko léegi ci rajo Futur Media ak ndam li nga xam ne mujj nañ ko jox kon Modou gannaaw décision arbitrale ak avertissement yi nga xam ne dox na ci seen diggante moo Modou Lo am ñaari avertissement Siteu am ci ñett ba tax na kon ñu daal di koy jox ndam gannaaw ñaari mitangu 10 minutes yi ñu daal di amal dellusi ci condition directe yi ànd ceeg Malal Junior Diagne. jàppante Siteu ngi door moo doon koy door Siteu koy door Ardo Ardo Ardo ku ne sonn nga mboolu mi-temps malal mi-temps ay malal demal na Ardo Modou Lo demal na Ardo malal malal Siteu def na lu kenn fagoo ci làmb ah way ñaari may metti na si ñoom la la la làmb waxul bu jeexee Modou Lo mooy ndam li mi ngi noonu kon ci noonu la daal di jeexee ak ndam li nga xam ne kon mujj nañu ko jox ki nga xam ne moom moo di Modou gannaaw avertissement yile moom am ñaar ki nga xam ne moom moo di Siteu am ñett kon daañ ci ñëw ci suñu yeneen xibaar rawatina ak kaddu yi nga xam ne ñoom mbër yi du ñàkk ni daañu ko yëkkati ñu wax ci beneen discipline ak basketball euh, ndax du xew-xew rek moo amoon ca arène national ca dakaar Arena itam lu ni mel mu ngi fa doon am ndax match bu am solo moo doon dox ba tey bokk ci qualification afro basket. deux mille vingt cinq guilé Sénégal doon laale ak ki nga xam ne ni moom moo di Cameroun quatre vingt moom la koy daal di daan ak euh, koo xamee ni fës na loolu itam ci boobu jongante di Branco Badio gannaaw ba nga xamee ni fanweeru poñ ak benn lay daal di am ci boobu jongante ñu ànd ceeg Sora Thiam ma ñu fa teewaloon. gaynde Sénégal yi nañ ko digle woon nañ ko daal di defee daal di nañu jël seen revanche ci kaw Cameroun daan ko 87 ci 83 ci noonee nag gaynde Sénégal yi daal di am ñetti ndam yu ñu doon wut ci fenêtre bu Dakar bile joueur yi di Matar Gueye ak Pape Moustapha Diop di ci addu. waaw victoire bi moo ñu gën neex parce que ñëpp xam ngeen ni euh, dañu pertoon ñoom. Euh, Nigéria euh, pré-qualification Jeux olympiques yi quoi digéré wuñu woon. parce la ah da ngay am sa moment am am da doo ñoom tamit dañu xam nga donc dañuy rester ak rythme match bi rek nekkoon na lu metti waaye fi mu nekk nii la ci am solo moom moo di gagné gi. ci di manager général bu équipe nationale bu Sénégal di Malay Ndoye di ko rafetlu. équipe bi mi ngi màgg amoon ay moyens yu difficile ci fin bi mëne woon nañ lu bëri ñoom ñu ñëwaat mais géré nañ fin bi gagné donc euh, félicitations aux joueurs au staff à tout le monde. et aussi di préparer feneen bii di ñëw pour mën a gën a évoluer équipe bi xam ne objectif bi Afrobasket yi nag moom ne naam ñàkk na waaye amul lenn lu muy wax ay joueur dans un match de basket tu sais qu'à la fin de ce match tu as donné tout ce que tu avais tu a vidé ton ventre ah il n'y a plus rien que tu pouvais donner en termes d'effort ce match là ce que le, le, le tableau dit pour moi ça n'a pas d'importance ah, on a perdu au score oui mais, on a donné tout ce qu'on avait pour moi ça c'est une victoire aussi. ak ñetti ndam yi Sénégal am daal dinay tax ba mu yokk chance am laataa bi ñeel segg gi jëm ci afro basket bi Sénégal mu dajaloon fii ci Sénégal loole nag ma ngay am ci weeru février Soda Thiam waaye laata fenêtre février boobi moom Ngagne Desagana Diop daal dinay wax lu leer ndax ba bi jeexee dafa daal di woo taskatu xibaar yi ñu waxtaan benn ci match bi waaye waxtaan na ca la ko gën a soxal jàpp na ni équipe bi euh, wàllum professionnalisme wane ko benn yoon ndax ay poñ yoo xamee ni euh, wane nañu ko ci billet yi wala ci hôtel bi neexu ko benn yoon moom Soda Thiam jot na taataan yooyu kàddu loo woo wax rek mooy man damay ñëw équipe nationale Boniface moo tax ma ñëw équipe nationale ak Mataan ak Mataan Ndiaye ñoom ñoo topp ba maa ngi ñu bëri fii xamuñu woon damay coaché te Boniface ba léegi am nañu relation yu baax xam nga léegi ba ma ñëwee lu xam ne hésité hésitant ñëw mooy man ba ma nekkee di basket fii deux fois rek laa mos a kii coupe d' Afrique deux fois laa mos ñëw parce que chaque fois da ay problème mu

bi avant ñuy njëkk si loolu c'est pas normal man du ma coach def du ma équipe boo xamante ne noonu lay kiiwee ñu ñëw ba fii dem hôtel mënuñu dugg hôtel am na jour yeeg si toog foofu bi midi à vingt heures mënuñu hôtel parce que fay ñu hôtel yi nañu concentré bu gayee suñuy trois matchs on a fait ça dañuy dem Europe bu ñu préparé Sénégal quatre semaines dañ jox leen plan bi man wax naa joué sama choix ku nekk sa choix la sa life adduna yaa jël sa choix bu fekkee mënuñu financer affaire man coaché tuma équipe que am na sur Soudan gis ngeen Cameroun bi tey gis ngeen équipe bu naar yi Tunisie bi joué ak ñoom ay fla fla yi entraînement ñëw Sénégal kii taxu nga gagné coupe d' waxuma bu ñu demee Europe dañuy gagné coupe d' yàlla mooy maye mais dafa am loo war a def sa àdduna jël jël li nga moom les joueurs yi sont pas contents du tout parce que pas normal bi dañu équipe bu koñ fekkee ñoom mënuñu def financement bu war a def man équipe bi nañ ko jël joxo keneen loolu yi di kàddu kon Ngagne Desagana Diop entraîneur bu équipe nationale basket ci wàllum góor ñi kon li nga xam ne moom moo di li ñu war a gunge équipe bi buñ ko mënee ñu def ko mu des ci équipe bi buñ ko mënul nañu dénk équipe bi keneen ndax moom liggéeyewul ñu ni mel ay kàddu yoo xam ne Sora Thiam kon moo ko daal di euh, taataan fàttali ni afro basket boobi ci qualification yi la ñu toll te laataa match Sénégal Cameroun bi amoon na itam match bu am solo bu amoon foofee ca euh, Dakar Arena di RD Congo ak Soudan daanaka final ndax ñoom ñaan ñëpp seen jogante yu njëkk di ñaar dañu ko daal di daan seen ñetteelu jogante kon lañ daal di tase ku nekk bëggoon ci am ndam waaye moom RD Congo moo ko mujj am 76 69 la koy daal di daan. muy ndam loo xam ne nag dina màggaloo bu baax équipe bi rawatina fédération bi bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur di Michel Perrin ay kàddoom sore ci am moo ko daal di taataan. évidemment que c'est celle qui ni ndam li bokk na ci ndam yi ñu gën neex ndax exploit la donte nag man sama digganteeg ñoom wax naa leen ni lu ni mel moom du exploit dañ ko jàppee rek beneen jéego bu ñu daal di teg suñu kanam ndam li ñu njëkk a am ci qualification yi jàpp naa ne sax moo gën a am solo ko bii ndax boobu dafa firndeel bu baax a baax liggéey bi nga xamee ne taxawaloon nañu ko bii nag moom ci continuité la waaye nag du ak équipe coomo lañ ko amal équipe bu màgg la ñu daan gëm naa ne sax mooy équipe bi gën a xarañ ci continent bi jamono ji moo ëpp émotion waaye daal man jàpp naa ne ndam li ñu njëkk am ci qualification yi bokkul ndax dafa jox ndaw yi confiance ci wàllum émotion nag ndam li ñu am ci kaw Soudan du Sud wax dëgg yàlla lu màgg la ndax gannaaw ndam li li mu nar a jur ci suñu réew moo ñu amal solo dina jox li nga xamee ni moom moo di idée waaye itamit ñu gën a génnee moyens yi pour ñu mën a avancer te lool yi gëm naa ni lu am solo la pour fédération pas pour moi pour les gens qui travaillent pour euh, Michel Perrin entraîneur RDC gannaaw ba ñu daanee kon Soudan du Sud 76 69 fàttali leen kon lool yi fenêtre euh, Dakar la woon daañu amal beneen fenêtre ci weeru février ngir xamandi euh, fukk ak juróom-benn réew yi nar a qualifié kon ci afro basket bi fàttali leen li gën a fës moo di ngañ Ngagne gana bi nga xam ne kon daal di nay dóor poñ ci taabal bi euh, ni ñu war gunge équipe bi buñ ko mënul moom day daal di démissionné ñu daal di jàll ci beneen discipline di football dellu si. ak juróomeeli bëccëgu championnat bi nga xam ne kon daal dinañu koy tëj match ba ca gënoon fës nag di géejawaay di bokk US Wakam bi nga xam ni moom dafa doon dalal génération foot ñaari bal ci benn nag la koy daal di daan daanaka surprise bu ñu sukkandikoo nag ci entraîneur waa US Wakam di Moussa Diatta jàpp na ne liggéey bi rek mooy tàmbali di fay waaye li gën a am solo moo di xool fan la ñu jaar ci bile jongante ndax bëgg na lu ni mel ñu répété ko ci biir saison bi ñu teewlu ko ci micro Youssouf Bodian. li may ak match nul ñuy ut di ut mais man li am solo rek mooy bañ a paniquer xam ni si projet la nekk championnat bi des na match yu bëri donc euh, lu gën a am solo mooy contenu bi liggéey bi ñuy def te gis naa ni équipe match bu nekk équipe bi mu ngi monter en puissance donc monter boobu man looloo mu amal solo tey c'est vrai que am nañu victoire mais je dis que dañ ko am dans la douleur pourquoi parce que bi ñu dugalee deuxième but bi adversaire bi dafa bëggoon moom ma ko kenn moom ko waa Wakaam ñoo ne di a xeex pour que ci seen boor gannaaw défaite bi seen entraîneur Boubacar Gadiaga jàppane ne nag wax dëgg yàlla chance la ñu amoon ci bile jogante ndax mënoon nañu rey bile match waaye nag li muy daal di jàpp rek moo di daa am ay poñ yoo xamee ni moo waral bile défaite poñ yooyu dellu si na ci ci micro Youssouf Bodian jàngat bi bari avant ñuy ñu jàpp wante yàlla def doxalu ko noonu on a dañu manqué ñu koy waxee si tubaab euh, efficacité. voilà on a def nañu loo xamante ne te moo nañu gagné am nañu occasion yu bari malheureusement amuñu euh, on n'a pas été tueur pour tuer le match mais malheureusement enfin am man nag je pense que ça c'est euh, booy bu njëkk bu ñaareel bi mooy que ne bu ñu defee changement ñëw li ñu war a apporter amuñu ko si ñoom. Euh, donc loolu sama sama pot la man maa koy maa koy gàddu parce que ñoom woon naa continuer ak li mu waroon def mais li ma doon dugal mooy pour man ma doon ma doon yoon ñu am bala ñu téye balaa bi mais doxul US Wakaam kon gannaaw ndam li mu am ci kaw euh, génération foot ñaari bal ci benn fàttali leen ni euh, ñaari jongante moom moo tëj kon juróomeeli bëccëg bi ci wàllum Ligue 1 bokk na ci kon ndam li nga xam ne US Wakaam am na ko ci kaw génération foot waaye itam Casa Sport ak Linguère dañu daal di témbo mujj def 0-0 ci Ligue 2 itam lu ni mel ñu ngi ko doon woyal di euh, juróomeeli bëccëg bi ñu jàpp ci témbooli dox ci diggante AS Kaffrine ak NGB ku ci nekk am benn but même résultat moo dox itam ci diggante Ñambour ak euh, Jàmbaar moom Stade mbuur dafa dalal Thiès FC daan ko benn bal ci dara ci boobee jamono AS Saloum ma ngay témboo 0-0 ci digganteem ak euh, AS euh, Bambey ki nga xam ni moom moo di SMA yi moom fekki amitié. daan ko li nga xam ni kon moom moo di euh, benn bal ci euh, dara ñu daal di wéyal ba tey ak euh, football jàll ca bitim réew foofu nga xam ne itam ñu ngi fa doon doxal ay jongante mënees nañu jàpp ca France li nga xam ne moom moo di kon Lille mi daan ren benn bal ci dara Auxerre daan Angers benn bal ci dara kii di Le Havre fekki Nantes daan ko ñaari bal ci dara jamono ji ñuy wax ak yéen ci diggante Nice ak Strasbourg Nice moo jiital ñaari bal ci benn fukki simili moom moo ca daal di des ca Angleterre itam ay match yu am solo bokk na ci Liverpool mi fekki ki nga xam ne moom moo di Southampton daan ko ñaar ñetti bal ci ñaar ca boobee jamono euh, United ma ngay témboo ak Ipswich ku ci nekk am benn bi waaye la ci gën a fës ci classement bi la léegi nag Liverpool euh, daanaka juróom-ñetti poñ moom moo dox ci digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Liverpool muy sax muy ki nga xam ne moom moo di Manchester City bokk muy sa affiche boo xam ne moom mooy daal di am niki dimanche di ñëw ci diggante yooyu ñaari équipe ca Espagne itamit Real Madrid daal dinay profité ci faux pas FC Barcelone ni ki démb gannaaw ba mu nulé moom Real daan ki nga xam ne moom moo di Leganés ñetti bal ci dara Mbappé Valverde ak Bellingham ñoom ñoo fay daal di euh, jaar ba tax ci wàllum classement bi kon ci yooyu ñaari équipe di Barcelone ak Real donte Barça moo jiital ca kaw waaye ñeenti poñ léegi moom moo dox seen diggante ca Allemagne mënees nañu jàpp euh, ki nga xam ne ni moom moo di Kiel mi nga xam ne Mayence moo ko fekk si daan ko ñetti bal ci euh, dara ca Italie itam yenn mel ni euh, Lazio bi nga xam ni moom dafay daal di daan ki nga xam ne moom moo di Bologne mu ko daal di daan nag ñaari bal ci euh, dara moom euh, Boulaye Dia euh, daanaka mujjuta bokk ci boobi jogante ñu jàpp itam napal mi daan Rome benn bal ci dara Como Fiorentina moo ko fekk si daan ko ñaari bal ci dara wala tembo gi nga xam ne dox na ci diggante Genoa ak yi ku ci nekk am ñaari but kon mbokk yi fii la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram ji rawatina ci sport weekend di leen jaajëfal ci ànd yi Pape Makhtar Samb ci wàllum xarale gi léegi-léegi xibaar dina dellu si ci kàllaamay français ci diggante